Djibril euh, Sène ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi mhm. nga jiite regroupement des sérigraphes euh, du Sénégal ñu bëggoon a xam euh, ñoom ñooñu ci lan la ñuy yëngu waaw man la Djibril Sène di président regroupement des sérigraphes du Sénégal comme ni nga ko waxee waaw ñun ci li ñuy yëngu mooy impression hmm. impression maanaam mooy dañuy lépp lu nga xamante ni nit ki da koy personnalisé ñun dañ ko koy defar maanaam tey boo bëggee t-shirt wala nga bëgg ay blouse wala nga bëgg ay casquette mais nga bëgg ko personnaliser maanaam fexe ba la nga la nga la nga defar noonu ñu mën koo ñu mën koo utal tur ba mu mën a am fu mu dëkk ñun loolu mooy suñu liggéey. ñu mhm. ne ko mën a tekk ci wolof. tey ñu dégg leen ngeen di artu euh, jëm ci li nga xam ne mooy tenue scolaire yi nga xam ne ñu ngi koy laam-laame fii ci Sénégal euh, lu waral ñu dégg leen ci. waa li waral ñu dégg ñu ci du dara lu dul nii dañuy araftu dañuy araftu parce dañoo nekk secteur boo xamante ni boobaag léegi Covid daf ñoo laal li tax Covid mu laal ñu nag ne xam na ko wax naa la sànq ñun ci événement la ñuy yëngatu événement nag boo ci yëngatu ñu ne la arrêté nañ événement yi kon mooy yow dootoo yëngatu léegi nag loolu waral na atelier yu bëri tëj nañ actuellement nii bu atelier yu bëri tëjee yàlla dogal ci mbaaxu président la république mu yëkkati marché bu tol nii ne dama koy jox confectionnaire yi mais ba mu koy jox confectionnaire yi confectionnaire fa am ñu ñu ko bokkal. muy ay artisan comme ñoom di ay sérigraphe yàlla dogal biñ ci jotee ñu war a xam ni lii nii xéewal la si ñun kon ah dañ ne lii de kon yàlla baax na kon de comme li ñëw na si ñun kon yàlla na yàlla dogal kon ñu ñëpp ñu jot ci biñ defee loolu nag ñu commencé jot ay information ci suuf yoo xamante ni dañ ne sérigraphie dañ koy écarté loolu moo waral suñu araftu bi. yéen euh, lan ngeen jot euh, lu waral sax euh, ci info yooyu nga xam ne jot ngeen ko ci circuit bi ngay wax ba ngeen jàpp ne dinañ leen écarter xaalis bee doyul wala da ngeen cee amul wàll. wa am nañ ci wàll bu baax a baax am nañ ci wàll bu baax a ndax ñu rek ñoo ci am wàll ndax ku xam na ni blouse boo ko boo ko jëlee jox ko élève bi kese mhm. te xamuñ ban école la nekk xamuñ ban classe lay def. Mhm. xamuñu aussi ban ban ban ban ban ban ban dëkk ban dëkk la nekk mm-hmm. loolu day day war kon loolu moom aw ñu am ci place mm-hmm. maintenant li ci li ciy ñuul nag mooy mm-hmm. dañ ne prix bi baaxul te ña koy wax mooy confectionnaire yi ñoo naan prix bi baaxul. prix lan benn prix bi ngeen jaayee prix bi moo baaxul waaw léegi prix bi tëli bu baaxul léegi est-ce que ça veut dire war a écarter ces grades war a toog sur une table ñu xool est-ce que dañu war a rajouter ci prix bi wala est-ce que. prix bi baax na wala baaxul mhm. loolu nag dañ ciy toog discuter ci mais mhm. waruñoo xool ba xam est-ce que euh, dañoo war a éliminer parce que loolu la wax ñi ma information bi dañ ne sérigraphie bi dañ koy éliminer mhm. parce que dafa am beneen coup bu muy créé waat aussi tamit euh, mën na am ministère na am te mu génne ko ci te loolu la ñuy bañ nag. ba ngeen ba ngeen artoog léegi ndax euh, am na ci euh, lu ci soppeeku. waaw am na lu ci soppeeku. Ah. am na lu ci soppeeku ndax euh, ñu ngi waxtaan ak ñun ci kaw est-ce que dinañ ci dañuy rajouter ci prix bi mm-hmm. wala est-ce que dañuy maintenir prix bi loolu nag moom ñu ngi ci discuter te loolu yaakaar naa ni am nañ yaakaar ci ni. Euh, du changé am nañ yaakaar daa ci def ay jéego. Mhm. waaw loolu la ñuy xam lan ngeen di euh, mbébét wala lan ngeen di wëyal comme euh, bu gannaaw artu gi ñu leen dégg. waaw waaw parce que yaakaar naa dañu dégg parce que nag li tax ma wax loolu mooy jox naa ko muy li ma wax la wax sànq mooy njëlbeen bi jàpp naa ni. Mhm. blouse mënoo koo def te indiqué woo kii école la. Mhm. élève bi aussi xam ban dëkk la nekk. yaakaaru mën dañ def exemple tey blouse jaune rek. blouse jaune bi nekk Diourbel ak blouse bu jaune bi nekk bi nekk bi nekk euh, Ziguinchor mm-hmm. mënuñoo ràññee ni blouse bi Ziguinchor wala blouse bi Diourbel la mënu ma ne yaakaaruma ko ndax blouse bu neutre kese marqué woo ci defoo ci dara mm-hmm. doo xam blouse bi kan moo ko moom mm-hmm. kon loolu day doy waar ci ci dégg-dégg sax waxuma la nag ci ci xalaat ni war nañ ko def moo tax ma jàpp ne ñemewuñu def lu mel noonu maintenant uh-huh, leneen li ciy dolleeku mooy uh-huh. covid bi ni ñu laale ñun yaakaaruma aussi danañu xañ loolu aussi donc ci ñaari fànn yooyu yaakaar naa ni fi ñu ko fi ñu Covid bi tool ba yàq suñu liggéey boole ceeb ñu war a mën a bañ a defar ay blouse sans ñu sans ñu personnaliser ko yaakaaruma ñaari facteurs yëpp dañ ko ba dañ ko négligé. waaw Covid bi ci ban anam la leen yàqalee ak nan la leen yàqalee sax surtout. Covid bi ni muy yàqalee mooy li nga wax rek xam nga booy liggéey ci événement ñu ne la yow ah fi mu événement arrêté nañ ko waaye kon foo jëlee liggéey. yow avec yow ci événement ngay liggéey ñu ne la arrêté nañ événement arrêté nañ rassemblement yor entreprise yor ay employé war ay à la yor ay charge lu mel ni fay fay fay fay fay fay location lu mel ni fay ay ay ndox fay ay courant te loolu aussi yëpp war la xaar ci atelier bi mais atelier boobu doo fa na foo toog boole ceeb nga am ay dépenses war a jox sa njaboot dépenses yooyu di la xaar kon foo koy waxee jee koy waxee kon tu es obligé tu es de fermer maintenant li ñu dal nag di doon xéwal ci ñun mooy marché bi egsi mhm. li marché bi egsi war ñoo jox benn kuréel suuf nag pour ñu nooyi tuuti xanaa tëjwaat atelier yi sax xanaa dajale ay ñi nga xamante ne libéré woon nañ leen indiwaat leen ci biir entreprise xanaa na fee mën na war naa mën a nekk xanaa. et justement ci yàqu-yàqule yooyu nga xam ne Covid bi defal na leen ko yaa ngi koy wax andiwaat ñi nga xam ne libéré woon nañ leen kon mën nañoo jàpp ne am na jamono ji ñi nga xam ne tëj nañu ñenn ñaa ngi chômage liggéeyatuñu ndax pandémie bi. bu baax a baax bu baax a baax loolu kañ ak fee bari man gis naa ñu bari ñoo xam ne sax ñuy jaay ak seen machine ndax ñàkk liggéey parce que nag boo yoree sa njaboot nga war leen dundal mais nooy def da ngay da toog leen xool yor ay bagage am ñoo xam da ngeen jaay dañuy jaay seen machine amuñu choix parce que nag xam nga xam nga biir du fen te am na ci loo xamante ne leer na ni boo jàkkaarloo ak moom jàkkaar sa njaboot nga xëy wala leen jox Euh, jabar leen jox luñ dundee mm. te gisoo loo def a ah, bu yàggee nga defi leneen mm. te loolu nag la ñuy éviter léegi nag yàlla dogal na lii ñëw fi am na ci yaakaar ni espoir la encore ci ñun yi nga xamante ni ñun ñooy Seigraf lii mën a dundaat atelier lii moom wax dëgg yàlla espoir la boo xamante ni gëm naa ni moo euh, monsieur le président de la République Macky Sall du ko bàyyi mu jàll ngir dundalaat atelier yi ndax Macky Sall nag ñun dañoo bokk ci li ko fal ndax fii Sénégal ku fi sol t-shirt Seigraf yàlla solloo t ku fi sol t-shirt campagne wala casquette wala fulaar wala lu mu mënti la ko defal. seen ños la wala dañ koo jéegaane. ñoo koy defar yu si bëri ñoo koy defar bu dul ñu ndax am na yoo koy jéegaane wax naa la élection bi passé dañ koy jéegaane woon defar nañ lu mat ay 1 million t-shirt yoo xam ne yëpp dañ koy jéegaane à hmm. te loolu du yoon loolu du yoon dañ koy jéegaane à te loolu du yoon. tey si xayma si xayma hmm? tey jamono ji liggéeyatuñu ndax mbas mi dalee na sonal est-ce que am ngeen ay chiffres à peu près ñaata entreprise yu bokk ci seen regroupement ñoo euh, liggéeyul jamono ji actuellement ma wax yow nii euh, regroupement bi yor am na plus de deux cent chefs d'entreprise mhm. yoo xamante ni ñu ngi ci yëngatu mais mun naa la ne trente yi ba quarante yi ba cinquante yi mun naa ne daanaka liggéeyatuñ mhm. parce que am na ci ñoo xamante ni ci campagne rek la jaakaar liggéey ci campagne lañ yaakaar liggéey. Mhm. mooy Macky mi ngi dem bërëb sàngam ah ab la ko war a def événement tel wala tel ministre mi ngi def nangam ci yooyu rek lañ yaakaar ci liggéey waaw loolu bu ko bu amatul léegi fo fooy ti fooy liggéey t-shirt fooy liggéey t-shirt dootoo liggéey t-shirt liggéeytoo casquette banderole waxi noot <laughs> waaw mais léegi defati leneen te bi si dafa n'importe parce yow sa ressource sa ressource revenu nañ ko fan nga jëlee ci xaalis ñi ki sa ressource revenu bu ñu ko tëjee amatoo fenn foo jëlee xaalis te looloo ñu dal actuellement suñu ressource de revenu lañ tëj léegi nag Macky Sall dafa mel ni mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci liggéey pour tijji ko ndax ñun confectionneur dañoo bokk ak ñoom pendant presque soixante ans wax naa la ko confectionneur lu mu liggéey ñun ñoo ko tiiree confectionneur lu ñu liggéey ñoo ko tiiree kon collaboration boobu lii tey waru tax ñu yàq ko. Mm-hmm. lii tey waru tax ñu yàq ko. kon liñ ci woo son excellence mu président de la République ñu ngi ko ciy woo di ci woo le coordonnateur du mobilier national ñu ngi ko ciy woo aussi ndax wax dëgg yàlla mu ngi ciy def lu ci war def mais dañ koy ñaan yàlla mu gën a dëgëral parce que moom tamit daf ci am daf ci am parole. di ci woo aussi le directeur du DER. di ci wo aussi le ministre de l'éducation mi nga xam ne ñeneen moo yor le dernier moom le dernier mot ñeneen appartient au ministre de l'éducation ñeneen moom ñeneen bu ci waxee mu dem ci da ciy dem ñu waxee du ci dem du ci dem kon kooku ñu ngi koy interpellé. waaye xam ne comme seen seen comme ki jiite jiite ñu ñun ñëpp muy le chef de l'état nag Sall moom dañ koy ñaan mu dimbali ñu lii mu bañ a tax tax ñu teggi ko nañ ko ci boole ak mooy buñ ci mën def nañ ko ci def parce que nag dana permettre ak lii tijjiwaat ñu xool lu ñuy def pour secteur bi gën a avancé ndax loolu mooy suñu rêve fu mu toll nii bu ko deful rek yàlla mën na def ñu bëri ñu ngi xalaat tukki wax naa la am ñoom dañoo jaay seen i machine parce que mënuñoo toog seen i njaboot mënuñoo tool si xool koo xam ne ci événement nga yaakaar. Mhm. ñu ne la événement amatul nooy def. da ngeen di jox ndaw yi xëy ndax euh, da ngeen di faral tamit euh, wala état day faral di leen associé ci ay projet am wala yéen privé rek ngeen di liggéeyal. li ci ëpp privé la ñuy liggéeyal li ci la ñuy liggéeyal léeg la ci des dañuy liggéey état wax dëgg yàlla état dañuy associé moom mais état dañoo seetlu ni euh, ci nu ma ko mën waxee sax du ma wax état mooy politiciens yi en plus en plus particulier ci nga xamante ni moom féete ci nguur bi. ñoom dañoo gis ni des fois dañuy jël seen chef d'équipe à l'extérieur te loolu bokk na ci li ñuy yàqal ñu bokk na ci li ñuy yàqal ñun li ñu soxla mooy t yi ñu koy def fii au Sénégal parce que loolu tamit mooy seen mooy seen rôle mooy ñu dooleel ñu comme dañ ne consommer local mais aussi ñu permettre ñu aussi ñu mën a permettre jóge plan A dem plan B. kon concurrence daal sonal na leen. waaw sonal nañu parce que tamit ki ñu concurrencé du du du suñuy concurrent chinois ay concurrent chinois yi doole bi ñu yor duñu ay concurrent moom yaakaar naa dañuy ñëw pour éliminer sa réew mais chinois yi moom concurrencé ak ñoom parce que non seulement au niveau de la technologie ils sont assez outillés du point de vue aussi tamit textile bi nga xamante ñun ci lañ gën a compter ils sont assez ñoom moom mooy mooy yow mooy concurrence boobu mooy concurrence déloyale la mooy dañ lay éliminer mais mënoo concurrencé ak te loolu ñuy woote consommer local di dem jëli euh, li nga xam ne am na ñu ko fi mën a defar bitim réew ndax loolu méngoo na. non méngoowul. méngawul mooy li may wax nii rek méngawul parce que ki lay woo ci loolu moo war a jiitu ci jàppale la te ki ci loolu mooy le président de la république te moom moo yor cëggal guy gi bi ngi koy waxee moo naan def leen lii bu leen def lii tey jii aujourd'hui aujourd'hui ñun suñu xeex mooy même bu ñu indi ay produits ñun li ñuy xeex mooy ñu bañ ko personnaliser maanaam ñu bañ a bind dara ci kawam ñu sérigraphie loolu mooy seen jooy ñu bañ a bind dara ci kawam bu ñu bind dara ci kawam rek ñun bu ñëwee bind bi ñu mën nañ ko def. parce que wax dëgg yàlla Sénégal Seydou Daak bu fi defee 60 ans ba léegi amatuñ problème pour outil boo xamante ni war nañu mën a permettre ñu war a mën a liggéey lu état indi war nañu ko mën a liggéey ak keneen ku mu nekk aussi matériel baa ngi fi machine yaa ngi fi et les Sénégalais sont bien pour que ñu mën a avancer wax dëgg yàlla côté Seydou Daak bi moom honnêtement je vous dis que les Seydou Daak se sont bien ku leen gën a dooleel nag dañuy gën a am doole. waaw loolu la ñuy wër ku leen gën a dooleel parce que nag loolu ñu gën a rek ñu gën a ay matériel indi ko teg ko ci table mm. parce que si c'est pour réinvestir nit ñi amuñ problème boobu mais pour nga réinvestir il faut de l'argent pour réinvestir il faut de l'argent donc pour réinvestir nag il faut nga am liggéey liggéey boobu moo lay permettre nga mën a denc mën a réinvestiraat denc réinvestiraat encore une fois pour am rotation mais bu fekkee da liggéey liggéey da koy dundee parce que si ça suffit que pour manger et boire ah ak tëdd nelaw ak fay location. Mhm. mais bu dee ci charge rek lay yem mais doo dem fenn doo avancer. li ñuy wax nag mooy ñu ñaan ko président de la République. Mhm. liggéey bi mu des fii. et au niveau aussi des politiciens ñu leen di ñaan aussi seen liggéey ñu koy def fi ministères yi aussi leen di ñaan aussi ñuy consulter aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ségraphie parce que tamit ñun loolu mooy suñu cër. loolu buñ ko amee rek liggéey bi day des Sénégal bu desee Sénégal rek léegi Sénégal li ñuy wax sérigraphie xaw ma ban département mais sérigraphie moom ci kàttanu suñu borom lii ma wax ne bu ko defee liggéey mën naa des Sénégal te liggéey mën naa tax sérigraphie Sénégal yi avancé te bu ñu avancé ñu ne ci ginnaaw sérigraphie ñu parce que nii ñu employé ci te loolu ñun xam nañ ñi li Macky Sall di jooy ci li nga xam xamante ne mooy euh, emploi hmm. wax dëgg yàlla sérigraphie mën nañ cee liggéey doo dem atelier sérigraphie boo fekkul quatre wala cinq wala six wala sept wala huit personnes non seulement dañuy contribuer ci emploi mais dañuy contribuer aussi la formation ñaata apprenti lañ yor atelier boo dem di nga fekk ñoom ñett wala juróomi apprenti kon dañuy contribuer non seulement sur euh, euh, l'emploi mais aussi ñu ngi contribuer sur la formation. Mm-hmm. vous voyez ce que ça veut dire. donc ku mel noonu nag wax dëgg yàlla bu nekk ci biir domaine ci benn domaine da nga ko war a accompagner dooleel ko ñun artisanat la damay wax ne ñun bu ñu gënoon dooleel artisanat romb fii ak romb fii te ku ne xam na ni. artisanat nag ku ne xam na ni. Mhm. moo yor moo yor moo yor àdduna. demal secteur boo mën dem ci àdduna artisanat moo yor àdduna mais artisanat il faut que dooleel leen te dooleel leen leen artisanat dem feer. d'accord malheureusement loolu mooy suñu souci. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Djibril Sène ñun tam ñoo leen di jaajëfal RSS yëpp aussi regroupement des services du Sénégal yëpp aussi ñu ngi leen di jaajëfal. Mhm. di leen wax ni ci kaw ci kanam yal na yàlla defal sutura defal leen jàmm yokk leen bu ngeen jëkk di wax nag jeexagul le combat continue. jërëjëf merci beaucoup.